مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل صل وسلم دائما ابدا على xam-xam bobu Cheikh Ibrahima amoon ba mun def li nga xamne ne njëriñu Sénégal la njëriñu Afrique yeb la lolu moy xam-xam ha ay xam-xamu euh jamono ji nga xamne nit ñi dañu réer nit nit dem na ba fàtte boppam xamatul fu mu jëm tas na mais ni caq bu tas bu ko defee nag gars yi di leen njëkkalante laay yi ne leen ñëw leen fii affaire yi laïcité la démocrate yi ñëw leen fii démocrate la libéraux yi ñëw leen fii c'est les libéraux yooyu moo leen di musal dëgg-dëgg yooyu dara mënu ci musal mi ndax dara amul kattanu attan nit ba di ko defar nit yàlla mi ko am bind rek moo am kattanu defar ko ndax alaa yaalamu man xalaqa وهو اللطيف الخبير <clears throat> مالك السماوات والارض ومالك المشرق والمغرب ومالك الانسان كوكريك مو دفر الانسان كنن كود مو دفر كو يالا نيو يالا ديمبالي بو باخا باخ يو باخ ييغا خامني دون نانكو مو كاوي ييب يالا نيو يالا ديمبالي نيو سخال كو باسكو سيني بوب ريك لاي ديلو سي سيني ريو لا نيو تباخال وايي لنين لول بونتي نيكي ريك دانيو نيك سي لي نيو نيك ريك لا نيو نيك ni di rayante ñi di taal ni dëkk ñi di nit nekk di ba ndax amuñ ba solution boobu nga ne ci pour arrêter solution ba États-Unis amuñ ko France amuñ ko Grande-Bretagne amuñ ko fenn waaye fuñ ko pour am ko muy euh, l'islam di wax ne ñi pourtant ñoom rek évidemment loolu noonu ñoom noonu lañ ko bëggee ñoom noonu lañ ko bëggee na xeex bi nekk seen diggante ba bu agsi ci ñun bu ko defee pexe yuy am rek ñu ngi koy jaarale ci biir ci biir monde musulman bi ñoom itamit ñu nekk fii di xeexante di rayante kenn tuur seen deret yi yàq seen kër yi lakk seen économique bi مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق صل وسلم دائما أبدا على